merci beaucoup euh, chers amis internautes de suñu média ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam comme niñ koy defee alarba bu jot su waxtu bi jotee ci seen chronique euh, mu nekk euh, initiative boo xamante ni yéen a ko bëggal seen bopp moo tax nekkul loo xamante ni waruñoo toog benn alarba di ko tëbal fekk ñoo ngi am kattan bay wax di profité waat ci occasion bi rek di leen baalu àq yéen ñëpp ci sawu ramadan bu ñu nekk comme niñ leen ko waxee woon muy weeru koor bi dañuy daal di jël ay jëmm yu baax di leen waxtaanee ñu stand by li nga xamante ni moom moo di wàllum politique bi tuuti <laughs> tey nag ñu ngi amaat mbégte ak bu baax a baax a baax di ñëw ci jëmm ji nga xamante ne nii moom moo di Bougane Gueye nekk njiitalu groupe des médias balaa ñoo sori ci wax ji rek di fàttali leen ne tënku wuñu toujours rek ci njiitalu groupe de presse yi su ngeen gisee ñi fas yéene waxtaanee tey ki nga xamante ni moom moo di Bougane Gueye Dany ndaxte nag lu muy def ci wàllum social ëpp naa noppi euh, voilà donc ñun dañ cee def ay gëstu balaa ñoo see wax amaana defuñ ci moom directement gëstu wante nag tey ak sa téléphone wala sa ordinateur mun nga am ay information yu claire net et précise ci jëmm ji di wax ne rek li nga xamante ni moom moo di groupe suñu média dañoo daal di focaliser wu tegu ci charte ak ligne éditoriale bu mucc ayib boo xamante ne ni nekkuñ fi di yàq jëmm kenn te nak ñu fas yéene leen a ñëwal ci ki nga xamante ni moom moo di Bougane Gueye Dany pour éviter monopoliser li nga xamante ni moom moo di suñu parole Bougane Gueye Dany ku ko xam xam ko ci wàllum social ku ko xam xam ko ci wàllum créer d'emploi ku ko xam xam ko ci nit ku baax ndaxte nag ay na yéwén kenn mësu kaa déggal lenn lu ñaaw fii ci réew mi rawatina ni ci bitim réew Bougane Gueye Dany dafa nekkoon ki nga xamante ni moom moo di ancien propriétaire agence de communication maanaam dafa nekkoon ci benn agence de communication boo xamante ne moom moo ko moom agence de communication boobu tey moom moo dem ba jur li nga xamante ni moom mooy groupe des médias groupe des média am lu bari loo xamante ne moom moo ko daal di coiffé maanaam moo leen yor lu mel ni le quotidien la ak li nga xamante ni moom mooy chaîne Sen TV bu ànd ak station rajo ñu koy wax Zik FM dama bëgg rek ñëpp dégloo ñu xel da ciy am solo ndaxte nag ay nit yoo xamante ne dañuy def lu baax ñuy wax si ñoom ñu déglool ñu dégloo ñu xel lu am solo la parce que ay royukaay lañ boo leen dégloo rek di nga fexe ba roy leen Bougane Gueye Dany ba muy jàng en 1997 ci la am li nga xamante ni moom moo di diplôme am xam ngeen ban diplôme la am amul diplôme journalisme de maanaam pour pour pour yaatal rek avant moo am loolu am na li nga xamante ne nii moom mooy diplôme en bâtiment maanaam bâtiment mooy tabax ba mu jugee ci loolu avant moo exilé wu maanaam di dem fi nga xamante ni moom moo di États-Unis liggéey na ci ay rajo yu wuute lu mel ni RFM liggéey na ci groupe bi nga xamante ne dañ koy wax Teranga FM te ba muy liggéey foofu moom moo wax ñu dégg amul woon sax lu tollook cinquante mille francs de salaire en même temps nekkoon na tamit journaliste fi nga xamante ni moom mooy groupe bi di Walfadjri tey Cheikh Tidiane daal di ko jiite en 2008 Bougane Gueye ci la lancé li nga xamante ni moom mooy groupe des médias composé groupe Sen TV Le Quotidien La Tribune ak li nga xamante ni moom mooy station rajo bu ñuy wax Zik FM ay joom ay doomu aadama yu baree baree baree bari di fa liggéey ñu leen di fay xaalis bu weex tàll ku ci nekk di ci tedd di ci teral ay njabootam loolu dañ ko siy félicité ndaxte créer d'emploi weesuwul loolu comme ni ma ko waxee woon ci yusuma jigéen lu tax nag ñu focaliser wu ci groupe de presse yi ndaxte dañoo gis tey jeunesse bi yëpp bëgg a wax amuñu fu ñuy waxee il fallait ñu jéem a nekk ci ay série après télé yi daal di recruter leen bu ko defee ñu daal di liggéey di toog di yebbeeku maanaam di wax loo xamante ne nii dafa nekk seen dënn loolu la tubaab di wax cri de cœur xam nga lu gën a yéeme ba yéeme mooy Bougane Gueye Dany da ngay xëy suba ba ngoon këram ran moo fay nekk te ñëpp xam nañ ne taalibe murid la taalibe Cheikh Ahmadou Bamba ku mën social la ku gëm social la ku mën a xelal doomu aadama xam nga social nekkul <laughs> da nga yëkkati rek di joxe mais di indi ay idées yu pertinent ay idées yu baax nit ñi di la déglu c'est très important tey nag bu ñu demee Sénégal la ñu delloo njukkal Bougane Gueye Dany bu ñu demee tey ba ñëpp xam lan mooy mobile money maanaam sa téléphone nga mën see jot xaalis c'est pure dire africain jooni jooni joni joni so koy firi ci olof mooy léegi léegi voilà joni joni moowu poulaar la terme bi euh, pulaar la joni joni mooy léegi léegi ah voilà donc ñi gis moom mu bokk ci ñu ko njëkk a initié en 2013 da ngay toog fi nga toog ñu yónnee la xaalis nga dem retirer ko. en 2018 mu indi li nga xamante ni moom mooy moom mooy gëm sa bopp loolu yëpp ci wàllum créer d'emploi la parce que joni joni lum ci amoon ay emploi kenn xamul nan la toll bañ nag ba installer ay point de vente foo dem ci Sénégal di nga fa gis joni joni nga dem ba fi nga xamante ni moom moo di ci sous raison bi di nga fa fekk ay agence yu joni joni mais lu gën a fës gën a siiw mooy la Sen Télévision Sen TV ak groupe Zik FM ay nit yu seen xam-xam màcc ci wàllum communication ki leen di jiite tamit xam-xamam màcc ci wàllum communication PDG wu groupe bi xam-xamam tamit màcc ci wàllum communication kon kooku ku jara jara jara jara jara njukkal la donte dugg na ci wàllum politique pour xëccoo réew mi wante nag liñ ko mën a wax ba wax ko ko mooy yoon bi mu jël ba ko teggi ñun pare nañ pour déglu ko te ñoo ngi koy déglu ala kuliyal ñoo ngi koy déglu ala kulliyaal te képp ku ñu xam ne Bougane lu muy wax buñ ko ko waxee dinañu ko déggal ala kulliyaal kon dañ ko koy waxal moom tamit kon c'est quelqu'un koo xamante ni il est digne d'être fils bu Sénégal gëm Afrique à cent pour cent rawatina ni dëkkam di Sénégal ku nekk xam ne ni créer groupe de presse c'est très difficile wante moom forcé no osé imposer boppam ba taxawal li nga xamante ni moom mooy groupe de presse ay nit ñu responsable tey mënoo lim ñaari groupe de presse te moom doo ko ci tudd mënul nekk mënoo lim ñaari rajo fii ci Sénégal doo ko ci tudd mënoo lim man ay temps damay jum sax ne jooni jooni ma ko ah voilà donc cela veut dire que ne ñi fi nekk ŋàññuñ leen wante bokk na fi ñi nga xamante ni dañ fee indi ay tur yoo xamante ne dafa des ci bopp nit ñi joni joni gëm sa bopp Zik FM Sen TV yooyu euh, dafa dafa africain wu trop ba pare nekk nit koo xamante ne ni ala kulyaal kenn mënul taxaw ne Bougane di def ci wàllum social ba Covid mi ne cëpp ne jonn laa débloqué des millions xëpp ko ci grand cœur émission bi am Sen TV mais loolu se pire dur sociale am na ñoo xamante ne dañuy yor seen xaalis ay na yéwén dañuy génn di ko saraxe ci mbedd yi am na ñu ko gën a yellool moom ñooñu la koy jox te deful lenn pour ngistal ba ndox mi ne cëpp ne jond mbënn bi bokk na ci ñu njëkk indi ji pompe pour wàllu askan bi nekkuñ fi di ko campagne en fait mais si quelqu'un koo xamante ni il a des actes yoo xamante ni dañ ko gis kon kooku kon tey jii nii ci wàllum créer d'emploi buñ ko ci woowee gëm naa ne buñ ko tegalee critères yu clair net et précis yu leer nag parce que moom lépp lu muy wax danaan tànk leerul du ci dugg ndaxte askan wi rek a ko ñor kon lépp luñ koy tegal dafa war leer bu ko defee dina ci daal di dugal loxoom ñun loolu biir nañu comme suñu deenum ñu ëmpee suba kon wàllum social buñ koy wax ci weeru koor ñii am na ni ñu koy defee ñi la am na ñu ngi koy defee mais moom ni mu koy defee mooy conseiller des jeunes te tey jii ni képp koo xamante ni yaa ngi conseiller des jeunes moment yi ñu toll soxla nañ ko plus de quatre cent vingt trois jeunes ñoom ñoo làqatu ci mbënn ci ci ci mbënd mi ma maanaam ci ci ci ci mbëkk bi pardon ci dugg ci gaal yi di dem Espagne de quatre cent vingt jeunes ci deux mille vingt deux mille vingt et ñu daal di ñàkkul nit ñu toll noonu ci deux mille vingt et un kese laa bëggoon wax te ñëpp sont des safricain rawatina ni nekk ay fii su Sénégal buggoon a tekki rek Bougane Gueye ci quai de pêche yi Bougane Gueye ci ñu manqué ndox Bougane Gueye ci dëkku yu amul courant yi di fërërëri fu mu dem ñu bëgg xañ àqam ak yelleefam mais du tee mu wax lu mu bëgg a wax dugaat oto benn violence ci réew kon kooku kon tey jii nii bu ñuy woote emplois de jeune waroon nañ ko cee boole parce que bu waxee jeunes nañ ko dégg xawma boole nañ ko ci xaw ma boole wuñ ko ci buñ ko ci boolee mu leer dina ci bokk parce que xam nañ euh, jëmm ji buñ ko ci boolee mu nar a lëndamee tout ça fekk jeunes yi après dañ ko ciy jéppi moom du ci dugg parce que nag kenn du xajamal cereem kon c'est quelqu'un koo xamante ni mates naa déglu c'est quelqu'un koo xamante ne ni na ko ñëpp bàyyi xel c'est très important tey nag bu ñu demee nag. bay jël ki nga xamante ni moom mooy jëmm ji di buggaan di waxtaan ci jëmbam ji on a fait des investigations envers lui am ci ay sources yu claires nettes et précises moo tax ñi daal di ñeme toog wax ci jëmm ji di buggaan gay di leen sant di leen gërëm di leen joxaat di daje ba àllarba bii di ñëwaat bu fekkul ñuy julli même bu fekkee tamit dañuy julli dinañ def suñu kémtulaay kàttan bu ñu ko caméraman mu ne acceptel Euh, di leen euh, sant di leen gërëm di rafetlu bu baax a baax a baax ci partage yi gis nañ ni ngeen koy defee di jox ñëpp di daje ba seen beneen chronique jërë ngeen jëf.